Bienvenue sur Salam Vision. Cees la ëmbal xale bu sant Touré am na ci doom doom ji mu ngi ci classe terminale déggee déggoo leen ma de moo jur taaw taaw biram saari ngootam ci boppam booba xale la xale bi bi mu koy bi mu koy violé booba du nekkul mineur mu mu mineur la woon biram saari ngootam dama ko xam te xamuma fekke lépp nag gis nga lii ñu ko jiiñ yàgg na ci man nag maay leeral senegaal jël leen boobu dégg lii ma ko jiiñ laa la wax yàgg na ci ndaxte tubaab dana kat fekke te ki fekke moo mën a wax toog leen déglu partager leen ko ma wax leen lii yàgg na ci te mës nañ ko cee jiiñ ba doom sosu na ci jàpp leen loolu lu bees dégg Sénégal Biram Saari ngootam du nee ngeen da ngeen may menacer yéen xamoo leen ma sax tey lay wax li leer le partagé leen ko ma wax leen Biram Saari Ngootam ka mu ëmbaloon Thiès ba am ci doom ba tuddee ko magam ju tudd Mouhamed jël leen partagé leen partagé leen du ku wili rek la jël di boobu ba tey muy watar watari fu ne mu dugg fu nekk mu dugg ah kii bës bi la yee bës bi la àttanut daal li ñu gis nit ñi taal taal taal taal mu yaakaar ne nit ñi moom lañ taalal ba lu ko neex def ne ne moom moom Sénégal ba ne da koy taal balaa mu koy taal ma jox ko sama bakken balaa muy taal senegaal ma jox ko sama bakken te damaa fekkee Biram Saari Ngootam Sonko mii déggoo leen ma de Cees la ëmbal xale bu sant ture am na ci doom doom ji mu ngi ci classe terminale déggee déggoo leen ma de moo jur taaw taaw biram saari ngootam ci boppam booba xale la xale bi bi mu koy bi mu koy violé booba mineur la woon xale bu ndaw noon la yàqee jàngam yaa ngi dégg so soo leen ma weddee mu na na na ñëw wax ma wax yaayu xale bi nan la tudd papay xale bi fan la doon liggéey ak papay xale bi lu mu doon wax ne baal leen ma de maa ngi waxtaan ak yéen bu baax a baax di leen wax nii di leen wax ni ki nga xam ne mooy Biram Saari Ngootam Sonko dama ko xam séeri Adji Sarr moomu kor Adji Sarr Bienvenue sur Salam Vision.